ndamal julit yaa ngi masalikul jinaan sago murit yaa ngi masalikul jinaan ndamal julit yaa ngi masalikul jinaan sago murit yaa ngi masalikul jinaan ndamal julit yaa ngi masalikul jinaan sago murit yaa ngi masalikul jinaan ndamal julit yaa ngi salikul jinaan musal na laak saytaan salikul jinaan fu bamba jaar ñuy raas na salikul jinaan barkeem baraw nay xaar salikul jinaan saxaar ga denge ndar na salikul jinaan jawal ndakaar ci nar na salikul jinaan digal sabam nay tooñ salikul jinaan liggéey ba joon waay na salikul jinaan xamis la raay bi teer na salikul kaboor ci leer taali gurjina keroog bajal tiisoor taali gurjina la ak sili tiisoor taali gurjina bu bëggoon a jaa bëgg naa taali gurjina julleek far lanu ci jaa taali gurjina wa biitutu i laylati taali gurjina zikri mooy waaji salikul jinaan isa sakartu salika salikul jinaan diita yàlla fay salikul jinaan danaa la way bañee ba xam ne doo maas waaw waaw danaa la way bañee ba xam ne doo fi maas waaw waaw ba yàlla mi tegee njaayam ma kenn jëndul waaw waaw moroomante woo borom salikul jinaan

sagul jëriñu ju mat nga saf nga doxal waaw waaw bu geesul ndigal sëriñ bi gërëm na la bu geesul ndigal sëriñ bi gërëm na la ah ndigal sëriñ bi gërëm bi man dama fi gisul fi sanaw lay du réew mi le du yu nu war Ahmadul Xadim sëriñ bi man dama fi gisul fi sanaw lay ah waaw du réew mi sëriñ bi man dama fi gisul fi sanaw layit du réew mi le du réew yi nu war Ahmadul Xadim sëriñ bi man dama fi gisul fi sanaw layit du réew du réew yi nu war Ahmadul Xadim gisee su ko xalaase su ko yuru dajul kile borom Masaalikul Funugi del danom sasul sëriñ bi man dama fi gisul fi sanaw layit yàlla ne wi xeet ku bi wala ñepp fi gisul fi sa nawle yore ki yaa accord di signé tamponné caché yi ba jox la alwara ngi yaram ñépp jàll ne noo sëriñ bi man dama fi gisul fi sanoore waaw waaw ture wele ture yi nu war amadul xadim aw baneexu bis ba waa safara ngi yëgub tëral ñañ ajana ngi santu le leen laa ngi cay safar sëriñ bi man dama fi gisul fi sanoore waaw waaw ture wele ture yi nu war amadul xadim waaw nañu ko magal waayi begal bi bégal mbégte mooy mbégum ku ne sant la bis bi bégal mbégte mooy mbégum ku ne ajana jaangi bégal mbégte mooy mbégum ku ne sant la bis bi bégal mbégte mooy mbégum ku ne nañu ko magal waay bégal mbégte mooy mbégum ku ne bis bi zaat la bégal mbégte mooy mbégum ku ne ak cant war na burit bi raw nga سين منتخامي سيجل لا لا أكل تور و بير أوغا إيه، سين منتخامي سيجل لا لا أكل تور و بير أوغا منتخامي سيجل لا لا أكل تور مو ملني بايم te donni maamam a boole saayir ak baatin ba ak jortu warna waa muy niiraw ba saada saxaabi sagal na la waajal ki yow la tànneef bi faw la yaay xallu wi leer ci yoon wi leer ak jortu warna waa muy niiraw ba saada sefira pon yaa jabe daay wi jafal ku ne ak jono warna waaw san taxami sagala sët bi ni roog doom moo soñu saay doom wala ki lay doon no doon ki le ak jono warna waaw san yaa dolli ngëm yi yeesal xam-xam yi am yàlla moo war may nga nu leen waaw saada yaa jëm fa kooke di yobbe ñoo ngi bul nu yërëm Mbàkke jàcci noo waaw saada yaa fees ci xol yi saf kër yi ngir yi yaa taaru uf ñepp yi ak jaratu war na waaw sand ku ne bëggoon na am sa jëm jee lu ñepp yi ñaan sa mel ku ne bëggoon na am sa jëm ji yow ñepp yi ñaan sa mel Cheikh Muntaxa laa ngir moom a doy ak doxinam laa yem ci yaa jekk aw saa mi nuru rëkkito jur gi suurul nañu te jar murit bu yeewoo muus tey xam digal toppal sëriñ be war mooy mooy dafay yiw baax am yërmande du tooñ te ku ko mu jàllale soxna baale bulu taaxa sa yàlla murid yi xam a jàngale yaa di murid waaw waaw am nga ngërëm ndeysaan ñépp la naw bi le yaa di yuusu yaa di murid waaw am nga ngërëm ndeysaan ñépp la naw bi le yuusu yaa di murid waaw ndeysaan ñeppala naw saadix bi le yaa di murit am nga ngërëm ndeysaan ñeppala naw saadix bi yaa di murit waaw waaw am nga ngërëm ndeysaan ñeppala naw saadix bi le yaa seetlu waxin taaru jëfin ndeysaan gëm sa jëwrin ji le yaa di murit waaw waaw am nga ngërëm ndeysaan ñeppala waaw yuusu fonk bone wekku la mag jox ku ne yaa nangu dogal yaa di murit waaw am na gërëm ndeysaan ñépp la naw saa di waaw yuusu siis du murit waaw nay du murit ndeysaan rëy du ah. di murit waaw am na gërëm ndeysaan ñépp la naw waaw yuusu sañ sa murit sol gu jotit yor xasaayit nan kafe di duruus yaa di murit waaw waaw ndeysaan waaw lii ku ci nekkul ay ku ci bokkul nandu ta noppee ñur ñoo ngi ci leen lii ku ci nekkul ay ku ci bilaayi xel du ca sañ ndax tim na xalaat ya Ahmadu ñëw na indi feeñal ya li ku ci nekkul ay ku ci bokkul bilaayi Ahmadu yàlla lar ga fanaar na Tuuba cay wana gamba li ku ay ku ci bokkul bilaayi door mburi tay chance baatu ndimbal la tànn nga ber la pay nga fa yàlla ku ci nekkul waa bilaayi amaro dam ci duniya teranga la jàmm la mbégte la féete la amaro la sala ci duniya teranga di ko yaay ko yaa di ko nu Madina ahmadu nam la sala ji duniya teraanga la jàmm la mbégte la fierté la محمد صلى الله عليه وسلم محمد ما شاء الله